wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa kaanu isal laylu arxa zitra saa lakin xamu siraha li axyaa illi junnaati assalaamu aleykum wa barakaatu bokki jullit yi bokki taalibe yi ñu seetaan te dañu diglu ñoo ngi leen di nuyu leen siyaare bu baax di jiital ci nuyoo bi ak siyaare bi cheikh Mouhamadul Muntaqa al xalifatul aam di ko ñaanal yàlla yàggal ko fi lool tamay ko ak wér ak mboolem njabootu Cheikhul ak ñu taalibe noo ngi siyaar ak a ñaanal sëriñ Saalix Mbakke xalifa sëriñ Afiya di ko ñaanal yàlla yàggal ko fi lool tamay ko ak wér ak mboolem njabootuk sëriñ Afiya gépp ak bi yëpp ñu ñëwaat ak di fàttaliku kenn ci yoon wi kenn ci lislaam ji kenn ci rakki Cheikhul Xadim yi muy sëriñ Afiya Mbakke sëriñ Afiya turam dëgg mooy sëriñ Ahmadul Muxtaar ñu gën koo xamee ci sëriñ Afiya mi ngi gane àdduna ci atum 1870 waajuram bu góor mooy soxna Aysatu Mbakke ñu gën koo xamee ci soxna Anta Njaay Mbakke waajuram waajuram jigéen hmm. waajuram bu jigéen waajuram bu jigéen mooy eh, soxna Aysatu Mbakke ñu gën koo xamee ci soxna Anta Njaay Mbakke moom ak Cheikh Sidil Muxtaar maam Cheikh Anta ñoo bokk ñaari waajur yëpp ak sëriñ Mbacke Anta ak soxna Faati Anta ñoo bokk ndey ak baay euh, bi nga xamee ne moom sëriñ Mor Anta Sali mi ngi ko tudde wëllëreem ab xaritam bu tudd sëriñ Ahmadou Maxtaar Ñang moom lañ ko tudde bi mu matee dal jàng sëriñ Mor Anta Sali moo ko dalal jàng ab diir mu jox ko sëriñ Daam Abdourahmane Lo mu jàngal ko ba mu wattu alxuraan wattu wu rafet eh, ñu yóbbu ko ci sëriñ Mor Soxna Jaara eh, mu teel ko kaymil bi téeméeri bis téeméeri bis yoo xam ne bis bu yàlla sàkk mu teel ko kaymil mu tari ko eh, ba mu wattu ko tugg wér ginnaaw bi mu jàng tam commencé jàng xam-xam waajuram moo ko tàmbalee jàngal xam-xam muy sëriñ Mor Anta Sali tàmbali ko jàngal ba mu téere bu ñuy wax umul baraxin te sëriñ bi wayoon ko muy mawaahibul quddus ah, boo delloo ci irwa un nadim ci sëñ Mouhamad Lim jo Dagana nee na sëriñ bi moo ko ko jàngal moom sëriñ Afi ah, sëñ Mor Anta Sali moo ko jàngal moom ak sëñ Cheikh Coro ñoom ñaar sëñ Mor Anta moo leen jàngal téere sëriñ boobu di mawaahibul quddus ah, sëriñ bi jàngal na ko waaye maa nga yeggale ci sëñ Mbàkke Buso bi mu yeggalee mu daal di delluwaat ci fa magam Cheikhul Khadim nekk ci wetam di ko tërbiyewu mu teel a ànd sëriñ bi lool ndax bi sëriñ bi dem gànnaar yu bokkoon na ci ñum yóbbaale nga xam ne wax nañ ne ba mu nekkee gànnaar waxtu nekk bu weeru koor masa jot moom la sëriñ bi di diggal muy jiite naafila ca mbooloo ma noonu la ànd ak sëriñ bi bi sëriñ bi jógee gànnaar di dem eh, ci yéen jolof it yóbbaale woon na ko mu nekk ci wetam nekk sëñ bi diirub nekk ci yéen jolof mosu taqali ko moom ginnaaw bi bi sëñ bi dem eh, njaareem yóbbaale na ko njaareem googee nag fala gën a eh, sëñ bi fala gën a wanee dëgg-dëgg fi ko feete ndax bi mu dañee bi ñu demee njaareem sëñ bi wax ko ne ko def naa la ngay sama naayib waxtu woo xam ne ñëw ma ci jàkka ji rek mën nga mën ngaa jiite boobee la tàmbali nag di jiite ca jàkka ja ba ni jumaa ji njariñ noppee sëriñ bi def ko ca imaam muy jiite noonu leen a taqoo nag sëriñ bi ba ni sëriñ bi ñibbisee Tuubaa eh, nga xam ne wax nañ ne mooy ki sëriñ bi mujjee jox ndigal wala boog bokk na ci ñi mujjee jox ndigal ci fatoom boobu mu doon fatu ci bisub altine bi defe naa loolu la wax ne moom lañ ko mujjee gis waaw bis boobee bu dul altine ji di diggante gaaw beeg dibéer jeeg altine ji daal diggante boobu euh, ci la joxe ndigal ne sëñ Xaafiya waxtu wuñ noddatee nay jiite ci jàkka ja kon bokk na ci ñi mujj a jox ndigal wax nañ ne ndigal loolee sax mu ko joxoon moom la ak njabootam di fàttaliku waxtu wu di ko ci màggalal sëñ Xaafiya nekkoon boroom xam-xam bu mag a mag boo xam ne ak xam-xam xam-xamam euh, doy na sëkk ci koo xam ne sëriñ bi moo la moo moo ko seet ba doy la mu def la mu def la imaam sëñ bi képp kum def samp dara rek kooka ku géeju la ca fànn googa ndax xam ngeen ne imaam itam du ko jug rek ñu nekk ñooy def la imaam moo tax sëñ Moussa Ka di wax ne maam soxna Anta Njaay wàcc na jur na yaaram eh, jur ilimaan eh, xaw ma nu ko waxeeti ca bay du woow muy way sëñ Moussa Ka te duwal ci sëñ Afiya eh, nga xam ne suñu suñu afiya ku ku ku yéeme woon la ci jaamu yàlla ak liggéeyal Sëriñ Tuubaa ak mm, kenn ku ne fala la Sëriñ Tuubaa féetaloo moom fi mu ko féetaloo woon mooy mu nekk élimaani jaareem ji mu def ci euh, ndigal la ko nag ko sëñ bi digale woon bi mu noppee gi sëñ bi itam ginnaaw Cheikh Moussa noonu la ko wéyale wéyal ko noonu ba 1940 1940 euh, bi nga xamee ne Cheikh Sidil Muxtaar maam Cheikh di magam ñu bokk ñaari waajur yëpp eh, ci atum 1941 1941 eh, maam Cheikh magam wéradi ca Daaru Salaam di ko seeti ci yor yorub eh, talaata ba mu dee di seeti Cheikh Sidil Muxtaar maam Cheikh Anta ko tawat ja daanele nga xam ne siiw na ci ñoom ñaar ne sëñ bi waxoon na leen ne leen kenn du ci dégg wàccu wàccu liggéeyu moroom ji nga xam ne eh, da doon seeti Cheikh Sidi Muxtaar far yàlla moome ko fa waaye taxut defe na ñu wax ne eh, soreewuñ seen diggante ñoom ñaar seen génn àdduna mi ngi toll ci ñeent fukki waxtu waaw daanaka kon eh, jege nañ lool ci yor yor talaata la ko la ko daaneel maanaam fa mu doon jullee takkusaan foofa la foofa la yam ci biir julle wàcc liggéey moom Eh, ci Darou Salaam eh, ñu indi ko Touba Cheikh Mouhamadul Fadil moo ko taxaw ñu indi ko fii ci armeel yi kon eh, kooku si sëñ Afia moom itam géej la goo xam ne mais na cee wax lu bare bare bari waaye kenn ku ci ne rek dañuy indi liñ mën a jëriñoo ci moom kon daal moom bokk na ci liñ ko mën a roye mooy jaamu yàlla sax ci jub te doy woon Serigne Touba te liggéeyal ko. liggéey bu bu rëy rëy boo xam ne ñëpp teg nañ ci seen bët ginnaaw bi nga xamee ne yàlla dogal na mu wuy ji boromam ci atum 1941 euh, doom ji ko njëkk a wuutu mooy Serigne euh, Modou Faramata Mbakke moo ko njëkk a wuutu ci atum 1940 am ñu ne 41 moo ko njëkk a ba ci atum 1900 Euh, ginnaaw bi mu demee daal ci atum euh, bi ginnaaw bi sëñ Modou Far sëñ Modou Faramata bi mu bi mu demee sëñ Xaasim Mbàkke moo ko wutu woon euh, ginnaaw sëñ Xaasim sëñ Abdou Lakram ginnaaw sëñ Abdou Lakram sëriñ Gede Mbàkke ginnaaw sëñ Gede sëñ Modou Ablaye kii fi nekk léegi nag mooy sëriñ Saalix Mbàkke yàlla na ko fi suñu borom yàgg lool tamay ko ak wér ak mboolem njabootu sëriñ Afia yëpp kon loolu lañ doon indil tey ci sëriñ Afia di ñaan suñu borom defal ñu digg ak gërëm suñ bokk yi ñu ko àndaloon sëriñ Babacar ñu ñaan suñ borom bool ñu defal tawféex wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu قلبك